le peuple sénégalais les li may wax rek li ma don wax que procès bii nga xam organisé, organiser nañ ko nguur gi xam bilan wam éliminer adversaire politique am pour que échéance bi nga xam ni moom la ñu dëgmal muy élection présidentielle 2019 ñu bañ ci bokk puisque koo xam ni juróom at nga yore ko Sénégal taux de pauvreté bi say propre service ñoo wax ni dem na léegi ci 56,5 pour cent te Ablaye Wade mu ngi ko bàyyi woon ci 41 pour cent donc ndoolal na réew mi niveau boo xam ni yëg na ne

constaté en tant que taskatu la population yi constaté ko service yi président de la république mo yilif agence nationale des statistiques ño wax né taux pauvreté ci Sénégal manam ndol gi 56,5% té Ablaye ko échec denk biñ ko denk yoru réew mi lenn na ko dese mooy jëfandikoo doole ji pour écarter ay adversaire politique loolu laa wax ne euh, loolu la population Sénégal war a xeex pour que président de la République bañ a mën a jëfandikoo doole justice di ko manipuler pour xeex politique bi nga xam ni moom la moom la war a xeex li nga wax nag ci àttekat bi li ma ci tontu mooy àttekat yi am nañu occasion tey pour firndeel ne ñoom bañ nañu loolu bañ nañu ñu leen di note di leen manipuler pour ay combat politique yoo xam ni du seen combat